ونور رسول الله عند ربي كتابتي أحمد بن عبد الله قسنتي وسانني أن لا سنت بشري مكاتب تسوق أهمدنا ميسرا لما زر ساطع القرآن ونبي ما جادني بسايا ونفي أداني الله بالكتاب ومن أبي بلا إتاب رب الإله والنبي أحمد وسيلتي وإنه المحمد كرامتي يا كون يا عبد الله قديم عبد الله عبد الله رسولنا أحمد سادر الإله صلى عليه وقف در الله جزاء منتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة جزاء بهت باللا إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله هذا القزائد قلوب جند لي بزرى مقبى وبزرى أورك الدين هذا القصائد قلوب لله بشرى مقفى وبشرى أولي كليل أنا والعرود والبيان لي سلمت ولبيان أربتي كتاب من المدور وبيو في تتقرنان إذا كتبت إيد الأرس الباغي وذب الملائكة التباغي على نبي الله سيد الله سيدنا نور رسول الله الذي أبلي أبلاي خايد الخلق لي للإله سيدنا محمد والآل وزبي في الآلف والمال وجل بجاه المنتخى آياتا رعاية القرآن سلقيا wajal middaal fawqa kulli maay barakatan kama tari samaay wajal kitaabati ka kulli mursali yaa man waabtali ujur rusuli fi ma jaraa bayni wa bayna man kabar xabdu wa kuntali bi muxjilin nawar yàllaahu yaa ramaan yaa raymu ثم بمجد مجد خصمها وجل بجاه المنتخبات رعاية القرآن سل آيات gërëm na la lool ndax nee na bu dugal itam ni ko jàpp ni ko def def ko sa taalibe bi waaye def ko ne sa doom def ko ne si lépp loo bëgg wax rek daal ni Abdou Lahad man mi xam naa ci dara danga ma woon ne ma ne Abdou Lahad nangam ak nangam waaw ah, kon Abdou Lahad dafa yéeme kon nag kenn mënu ci dara kon nag loolu nee na bëgg na ci lool daf ne daa am loo xam ne mënu su koo wax ndax mbégte mum ngi ci am mu ne ma nag ma jottali sëriñ bi sama kat di mbégte xamal ne ko visite bii daal visite bu ne ñëw na fi waaye bu ma dàqale ni bii gisaguma ko kon nag ma ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla yàggal la fi lool ci wéral la lool ci barke Cheikh Modou Fadal mbooloo mi nga xam ne ñooy liggéeyandoo ak moom nag te fakkasaluñ ko ndax lii boo gisee xam ne mbooloo mi liggéey ak moom ñoo am fa te kenn ku ne daa jàpp ne sëñ Tuubaa nga liggéeyal kenn ku nekk dangaa jàpp ne yaa nga tubaa xelkom kenn ku ne yaa nga jàpp ne yaa nga tubaa bogo kenn ku nekk da jàpp ne ba ñun njëkk ña daan liggéey sëriñ su mag fañ ñëwoon fa lañ ñëw ñi nekk moo tax kenn amu ci léegi xaal ma seet amul dara moom itam yàlla def ko muy liggéeyandoo ñu mu war a mi ngi def ci baatin waaye itam li mu war warloog ñoom mi ngi leen koy jox ba mu mat sëkk ba ne kenn ku ci nekk itam kenn ku nekk xam nga fi nga féeti ci moom kenn ku nekk liggéey bi da nga koo def muy sa toolub àllarba kon nag loolu bu ñëwee fi nee na war naa mën a sant Mm-hmm. kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk ah, ñi nga xam ne ay xaritam lañ mm-hmm. ay taalibeem lañ ay liggéeyandoom lañ ca ñoom ko fi ñoom ñëpp mm-hmm. kenn neen xamal daal mi ngi lay seereel ne daal ñu ngi ko jàppale ci liggéey bi ndax bu doon moom rek liggéey bi li nga gis du mel nii waaye ñoom ñu ñoo taxaw futteeku jaayante ak Serigne Touba ba liggéey bu mel nii bari na yeneen bâtiment yi fi ne de waaye bâtiment yi fi ñu toll bâtiment bi laaxatkat yi fi ñu toll yenn bâtiment tolloo guñ fi te loolu ndimbalu Serigne la kon nag mi ngi sant bu baax di la gërëm bu baax di ñaan nga ñaanal lii ñii ba liñ bëgg lépp ñu man ko. kon bu ñu toogee ba yàlla dogal euh, sëriñ Abdou Lahad Mbacké sos daara ji muy dox ba agsi ci sëñ Mountakha mu tàmbali ko di ko liggéey yàlla dogal nga dellu si fii fekke loolu te man de li ma mën a seere ci yow te xam ko mooy daal lañu la def loo woon mooy alxuraan moom nga gëm moom nga doyloo ndax kenn mësulaa dégg itali kenn mësulaa dégg Amérique kenn mësulaa dégg France te yaakaar naa ne demoon nañ ba yaakaar ne ku fa demut waroo tekki mais da nga gëm sa maam gëm li mu def xam ni lépp a ngi Touba lépp a ngi Sénégal nga toog Sénégal lu ngu dem fenn ba fi mu toll kenn mun laa digg fenn lu may Sénégal ba sëñ lu fekkal la fi boppam defal li mu la defal ndax nag ñoom képp ku leen doyloo bàyyee leen seen bopp ñu defal li ñu la war a defal mhm. ku làmbatu ji feneen mën nga caa sonn te doo gis la nga war a gis yow nag yaakaar naa ne ci li ma xam te gis ko ah sa bàyyi la jëkk a aw yoon rek nga xam ko gëm ko ndax fii nu bokkoon nekk ci panterie bii fii kër Soxna May gii na nga fa nekk woon nun ñëpp fekk nañ ko muñ nga fa nekk woon na fa tooge woon te téewut mboolem nun ñi fi nekkoon ay tuut tànk bu bu bëccëgee bu ngoonee lépp loo am lu mu tuuti tuuti da nga ko def ay kafe wala nga togg ko dina ko jox ñu di ko lekk loola nun noo ko mën a seere mm-hmm. ci jafe-jafe yu métti na ca yooyu jamono mm-hmm. nga jóge fa ba nga demee Ndakaaru nit ñi dem Amérique di dem France di dem Italie da ngaa doyloo sa bàyyi doyloo sa maam toog Sénégal ba lii mu la defal mu fekk la moo la topp ba ak si fii ñun daal gëm nañu ne tey sëñ Fallou toog fii gëm nañu ne sëñ Tuubaa moo toog fii ndax la nga gëmoon si sa bàyyi gëm ko sa maam loola moo la topp ñii ñii ñii dox bari nit ñun fekki wuñu xamul waaye ñun ñi xamoon xam nañ ne daal lañ la def loo woon def nga ko ba nga war a jàng alxuraan dugal na daara jàngi nga alxuraan yàlla dogal na toog naa fii di dégg ñuy wax ne mbàkke mbàkke yii nag yi sëñ Tuubaa di seen maam suñu Abdou Karim ma ci dàq bind te loolu ñu bari fekke nañ ko gis nañu ko mbindam moom jàpp naa ne fii mu ne am na kaamil bu ko génne woon comme ko teg sa loxo danga nga am i boo boo koy mool di ko jaay dami milliard ndax kaamil suñu fal lu ne am nañ ko ci waaye mën naa waat ne moom mi bind na kaamil yoo xam ne bu ko génne tey joxe ko jox ku ko jox rek sa adduna dina defaru ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di sant Serigne Touba Xaadimu sol di ñaanal xalif général mu yàgg fi tawér di ñaanal Serigne Sidi Abdou ak yow mu ngeen yàgg fi lool tawér eh, di du ma du ma mën wax tey ndax mbégte mu rëy waaye daal di ñaan sëñ Touba di ko ñaan képp ku dib taalibe nga ñaanal sëñ Abdou Karim mu yàgg fi tawér ndax ndax ndax sama baay de waxoon na Serigne Abdou Lahad ne ko sëñ bi mu ne mu ne ko nit koo gis day euh, boppam ma ko bàyyi ci mbir bëgg sama bopp ma taxa na dan na la ngay sëñ Tuubaa ma ne la dan te ngir sama bëgg sama boppa tax ma def la ko ndax damaa wóor ne mënal ngeen ma lu ma ci sama bopp lu ma munut moo tax ma di ko def loolu nag euh, firnde firnde nga ci ma daal jë nga ma jàppe ah, di def ma doom def ma taalibe def ma xarit te sab xarit sax matuma ko waaye doom gi ak taalibe gi daal toll na ci man noo xam ne am na am na mënuma koo xayma di di di di la ci sant di la yëgal ne it sa sa sa xarit ba di sa xalifa bi mooy sii di sant na la cant goo xam ne am na tàmbali waaye amula ab yemukaay ndax kon man xam naa bu baax sa digg ak moom loolu nag soo yàlla dogalee nga ñëw fii tey ci liggéey bii nga xam ne liggéey Sëñ Tuubaa la Serigne Mountakha yëkkati ko teg ko ci sama loxo ma di ko liggéey nga ñëw seet si ko man sant gën na maa sant yàlla sunu woon ndax gëm naa ne sëñ Tuubaa ñëw na gëm naa ne sëñ Tuubaa nangul na ma mm. ndax fu ma la lu ma la séen rek xam naa ne sëñ bi nangu na ko defe naa ne wax naa la ko daaw jeeg ci kër ga mm. nee naa ne sëñ bi eh, am na am na loo xam ne du waxu rajo mm. waaye yaa gëm naa ne loo dugg rek sëñ Tuubaa nangu na ko maanaam loolu loolu moom xam naa ko ndax nag yoon wi moom duñ ci ay mag waaye duñ ci gan duñ ci gone ndax bu ñu ci gone yi doomi mag lañ kon nag mbir nag wallax njaan nag war naa war naa lu mu xamadi xamadi dana xam li ci ndaali te ñun wallax njaani yoon wi lañ ndax yàgg nañ ci ndax suñ maam la woon ak sëñ Tuubaa suñ baay la woon ak seen wàjjur ya ba ci ñun ñi ak yéen waaye daal ñoo ngi lay ñaanal ci darajey sëriñ Tuubaa yal na yàlla guddal saw fante wéral say cër le ngërëmal sëñ Tuubaa moom am nga ko ba noppi ndax taalibe yëpp képp ku di murit rek te bëgg lu baax rek bëgg na Serigne Abdou Karim gëm na ko mi ngi koy ñaanal donc te ñaani yaakaar yi murid yooyu nag maanaam ñëpp ñu gàcc ko ci Serigne ngir suñ borom musal la te suñ borom moom lépp lu Serigne Touba bëgg defal na ko ko kon ya defal na la loolu ñu yàlla jëf sant daal mun ta ñëw gi ma ñëw fi bëgg na naa ci lu ñu toll wala lu ko ëpp maa ngi koy tàmbalee ci dama wax ne sëñ bi muy taxawal jumaa ji xam nga ni jumaay Tuubaa ji ni mu toll te booba eh, Tuubaa ay kër yu néew fi ne te kër yi fi newoon na ku néew sax ay kër yi ñax rek la loolu koo xool taxawal fi jumaa ju mel nii xam nga ne xam nga li ñëw ci kanam jumaa ji fi mu nekk nii li dëkk bii rëy rëy lu ñu toll bu ñëwoon it jumaa ji mën a nekk seen jumaa jumaa ji doy ko fi mu ne gis nga Tuubaa ni mu réy waaye jumaa ji da koo doy ba des loolu moom la Sëñ Abdu Lahat def Sëñ Abdu Lahat euh, bibliothèque bi mu tax daaray kaamil ji mu def ci penku jumaa ja ci këram la ko tàmbalee woon muy ab néeg mu ay machine def fa yóbbu fa ay gaay ay xale yu ndaw yoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ tey taalu bi piir muy ñoom xaadim ka ñoom ñoom ak ñooñu ñu ñu muy dem ba xajatu fa yóbbu ko def ko daara yi kaamil yi xam nga kooku xamoon na ne ba muy def néeg ba xamoon na ne loolu muy liggéey ci daara ju mel ne rek la jëm te moo ca xaj mm-hmm. loole mooy dox ba mu taxawal fii xam nga ni lii seen laat bi mu koy taxawal booba yaatuwaay bi doy na yéeme na kenn xamul lu mu doon waaye booba xam na fi mu jëm moom ndeke booba ki ko war a liggéey mu ngi ñëw muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif saal liggéey bi nag yéeme na bâtiment yi nga ma doon wan léegi muy juróom benn bâtiment benn bi rekk benn benn ci juróom benn bâtiment yooyu rek doy na doy na kimaan doy na ma doy na sëkk ci yéem yéemu waaye li ci gën a doy waar mooy Sëñ Abdoulaat sos fii lu dem ba waxtu wi nga koy yeggale Sëñ Abdoulaat yor liggéey bi xam nga loolu xam nga loolu xam nga loolu mbir la cay lu mat a seetlu waaw moo tax Abdoulaat Ka man mu fonkal ko sama bopp dama ba ma ko jëkkee gis dama ne man Abdoulaat bi ma koy dégg damaa defoon ne boo ko gisee nit ku nit ku xaw a doon changement lay doon. doon murit boo xam ne bii day day kii lool du daanaka ak taalibeem du kii. waaye ma gis ko. Mm. ndeke moom murit saadix la. loolu laa ko wax loolu laa ko wax ma gis waaw. man dama dafa bokk ci yu day bokk ci ñooñu nga xam ne ay borom yu doole la doon yàlla jox leen tur ci yoon wi ñu di ko wane saa bu nekk. di ko feeñal. waaye boo ko gisee xaw ma nii mu mel noonu lay mel xaw ma ko woon. Ah. yaakaaruma ko woon sax. Mm-hmm. dégg nga loola booba nga ma saf ba léegi. alhamdulilah yàlla boole la ak alaaj Njaay mi nga xam ne moom itam. Mm-hmm. yoon wi da koo ñor. Mm-hmm. sëñ Fallu ñor ko. lool. moo di ci dox doxin bu rafet. alhamdulilah. ba ñi nga xam ne <clears throat> dañoo bokk ci Serigne Fallou ak yoon bi yëpp naw ko wóolu ko bëgg ko mu ñëw nekk ak yow. fu ñu la tuddee rek mu seere walla sax fu ñu fu ñuy waxtaanee te moom faw mu tudd la fa balaa balaa jeexal. Mm. wax ci yow say taxawaay. waaye lu wàññi ko alaaji sëñ sëñ bàyyi laat de xam nañ ko ci moom waaw alaaji mi saaliwu mi loolu yoon woowu muy wax ci Lomé booba soxna may mooma bëggoon yóbbu Gabon ngay galas fekk na boobu dem Gabon yombul jamono yooyu eh, visa yi ak yooyu dugg fa daal yombul mu ne ma nag da ngay jaar ci yoonu suuf bi boo demee ba Cameroun nga toog fa tuuti ñu topp tool la say kayit bu nga mën a dugg ci laa jaare noonu ba njaar lome fekk ko fa waaye bi ma demee ba Cameroun yàlla dogal eh, sontak yooyu soxna may di rakam yóbboon ko fa mu wàcc liggéey mu dellu si looloo ma wàññi ba àgguma gabam waaye ñoom dañoo doy waar mm-hmm. ndax sëñ Abdou Lahad bi may dem te boobu man maa ngi dem Gabon waaye boobu dem Gabon daanaka kii ma rek ay ay ay waxam ma fa yóbbu rek waaye itte woowu ko woon waaye bi ma demee ba ba ba ba ba ba kii ba ba Burkina Faso laata du guddi rek gént gis Sëñ Blaat boobu mooy xalifa bi ci laa xam ne xalif général de Mouride lu ñuy gàccoo la lu ñuy lu ñuy yor la mu mu mel ni dafa nekk ci miir bi nii ne ci biir dafa mel dafa nekk ci biir miir bi moom suñu blaat ak kàll ak yooyu noonu mel rek ne ma foo jëm man ne ko man kay xaw ma ko man ne ma la ma wax <coughs> ma xëy sama yaram yépp dee ci gent gi ndax la ma gis am naa ne gént la waaye gént gu làmboo mbir la mu rëy sama yaram bi ma xëy am na ngóotu fa noonu ma yónni ko ndawal gu bari mu dem jëndal ma ko ma xiiwli ci jox leen ko yàlla dogal mu mel ni daal dafa li woon li ma li sama yaram doon yëg dafa wàcc ma décidé ndax bi ma bi ma sëñ Abdoulaye waxee loolu décidé woon woon naa wàññi ko ci suba gi waaye bi ma defee noonu ma ma décidé dem ca guddi sëñ Fallou ñëw ak sëñ mag bi taxaw fi sëñ bi laa taxawoon. sëñ Fall ne mu foo jëm ma ne ko man damay dem rek ma ne wàññi ko waaye fi nga jëm da nga fay wuti li nga bàyyi gannaaw ko ëpp. loolu ma wax. sëñ bi sëñ mag bi ne ko ne ko bàyyi ko rek bu jógee fii di jàll du àgg fi mu jëm wàññi ko rek lay def. waaye bu yegg fam fam soxla bu fa yeggee du du bu fa bëggee dem du du yegg hmm. sëñ bi daal woon mu fii belal ma ma ni ma bind loob kaamil ba ma waxee li may wax ba ma génn bay dem ba toll ci bunt bi mu woowaat ma ma ñëw mu ne ma fexeel ba mu doy waar de moom nu mu doyee waar rek da nga noonu waar hmm. moo tax ma ne xaadim loo wax rek danaa ko danañ ko gëm ndax ceeb bi ak diw gi ak dugub ji yaa ko daan yóbbu oto xaadim foo ko mës seen rek yóbbu na yóbbu na ceeb wala mu wala mu yóbbu wala wala wala mu di ko jël di jël yi ngir yóbbu ko loolu rek moo doon liggéey moom dégg kon daal liggéey bi di dox di dox ba si loxo ki nga xam ne nag moo ko war a yëgale yàlla nañ ko fekkee amiin te mu sotti ni mu ko bëggee amiin muy Cheikh Mamadou Mountakha te yaakaar nañ ne dana sotti de ndax sëñ Tuubaa koy jàppale li ma waxoon ci sëñ Ebo rek dama ne woon nun waa kër sëñ Fallou ay sikkim lan rek geestoonu yóbbaale sëñ Ebo mooy geestu nun ay sikkim lan sañu booy geestu bu geesoo rek sikkim moom bu bu bu bu bu geesoo rek yóbbaale yóbbaale yóbbaale ñëw ñëw sikkim ya e. loolu mooy dox ba léegi bërki na bi rek ñëw na sama kër ndeysaan bég loolu ànd ak suñ mortala ak ak rakam yooyu benn si jabi bu ñoom ñoom it ñu bég lool loolu nu di ko sant yàlla ñu ngi ñaan daal liggéey bi yàlla na sotteeg jàmm ci ci ci sa loxo bàyyi laat ak yeneen ak yeneen yu yokk yàlla na ko yàlla def bëgg nañ bu baax daal ci teewaay bi jërë ngeen jëf gaa ñi nga xam ne ñoom nga wax ne ñoo lay jàppale it mm-hmm. euh, bëgg nañ ci ñoom mm-hmm. da wax léegi kàddu gu am solo mm-hmm. ci sa sa sa waajur la xaw ma sa maam nga wax koo xam ne kii dafa waxoon sëñ bi ne ko mhm. li ma li ma li ma bëggal sama bopp xam naa ne li nga ma bëggal ko ëpp mhm. moo tax ma ñëw jàpp ci yow mhm. waaye ñii itam luñ mën a def ak luñ bëgg-bëgg ak lu ne ci seen xel li li bi li leen sëñ bi bëggal te mënal leen ko bëggaluñ ko seen bëgg-bëgg mënta yegg foofa ndax bëgg-bëgg dafa am dafa yaatu dafa am ay ruq yàlla li mu def ci bëgg-bëgg dafa rëy dafay def ci jàmm bi <clears throat> mu bëgg rekk fi fi fi pas-pasam toll ak yéeneem waaye ci bëgg ga dafa am ay ruq yoo xam ne ay ruq yu naqaree xam la yoo xam ne yii nag sëñ bi moo leen koy ruqantil bool koog li ngeen bëgg li ngeen yéene yàlla defal leen ko incha allah jërë ngeen jëf alalladi satali tawida wa bi rasulika alwayda